man man tudd Alaaji Dem chef de village Thiaye Faly waa ci waa ci Touba mosquée la waaw ah, man man man man daal dama tëdd ba ay ay onze onze heures ci guddi diggante onze heures ak minuit rek ay ay ay man yuuxu ay yuuxu yoo ma yee man man yuuxu rek ay ñuy dem buntu tell tell ay ay dajji ay buntu rek man man boobu boobu laa yeewu ma ma tasante ñu tasaaru ci biir kër man sax bi bi may génn a ab kuuru baay fa laaj ma xaar ci buntu bi no bu bu ma ko bu ma ko amul woon nu ma def bon demay rey waaw noonu la dafa fekk lépp jaxasoo nag léegi man bu fekk eh, ñu wóolu wóolu nañ gone génn nañ ñu ñu ñu jàkkaarloo ñoom bi ñu bi ñu génn leen kër gi ñu ñu ñu demaan nag ñu ñu ñu ba ñu ñu ñu ñu ñëwaat ñu ñëwaat nag léegi ñu ñu taxaw ci ci ci ëtt kër gi ñu ne leen léegi moom kenn dootu dugg ci kër gi ba fa tasante rapport bi ñëw na man daal loolu laa ci am waaw waaw ña rey nañ ñetti béy yóbbu nañ juróom fukki kar gaañ gaañ nañu ñetti ñetti ñetti gone ñoo bàyyi faal yi bàyyi ah man kay man kay xaw ma bi ñu bi ñuy coow ak ñoom fere ñoom ñi yor bi ñoom ñëw ñu bi gét tabiri ñuy sarse ñoom waaw sarse rek bi ñu laar jóge fi fekk sarse nañ bi oto fees ñu dem man moom gisuma gisuma bi bi bi bi commandant ñëwee ubbil naa ko yëpp kër gi yëpp fu ci ne dugg na ci mu mu wiri fi wiri fi gisul dara gisul ngarnaay gisul poon gisul dara waaw waaw suñ suñu gone yi am na yoo xam ne suñu gone yi boobu jàpp nañ leen ñu yóbbu ni commissariat waaw. Baye Fall yi waxuñ dara de ñoom ñoom waxuñu dañu wisi waxuñ dara ñoom ñoom ñoom dañu taxaw buntu ñoom ana góor ko génn leen ñu rey leen génn leen ñu rey leen la la man la man man bi di yeewal loolu laa dëkk génn leen ñu rey leen génn leen ñu rey leen. si si si waaw sama rakk bi ñu tooj ñu toj boppam. non non mu ngi yoroon caméra am quatre cent cinquante mille noonu lañ koy yóbbaale. waaw déedéet mosu ñoo sekk ñoom dara mosu ñoo sekk ñoom dara mosu ñoo sekk ak ñoom dara ñun moom ñun moom ñun moom mosu ñoo mosu Baay Faal sax wala wala kuloo wala sekk ak moom moom de moom moom de moom nee na nee na nee na nee na buñ lefi ne buñu buñu buñu jugee ci lee ñuy def buñu buñu buñu lefi ne bu amee ay fan bu seddee ñu ñëw ñu mën a ànd ak moom foofu ñu dem ca ca ca kalifa bi ñu ñu ñu ñu baalante ak noonu daal wax na moom loolu moom loolu la wax ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne kii kii ñuy deele ñu ne kii ñuy deele la la ñu ñoom ñoom ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu ñu négocier ak ñoom. ah génn yaa ngi tëdd ba ba ba nit ñëw ci yow moom moom gi armée moom li koy génn. ñoom ñoom ñoom ñoo fi ñëw bu ñëwul woon fii duñ gis arme ñoo dugg ci kër gi ñu ñu ñu bëgg ñoo faagaagal waaw waaw. man Sow laa tudd waaw man li ma njëkk a jaaxal mooy ay mi ah, ay mil yu moye. kanaa kuy ñëw di visiter kër doo ñëw min mi mooy nga war xar ba yoor yoor wala ba ay dix heures onze heures midi une heure nga ñëw su fekkee dañ laa tegtal kër guy jaay poon wala sangara nga ne kër gii laa jëndoon poon wala kër gii laa jëndoon sangara ñu jàpp kila la ko jaayoon yóbbu ko am na wala amul waa ñëw dem ba min mi mooy ñëw taalu mot juróomi oto ñëw ba ci papar kër nit ngeen di génne ay jaaseeg dóor ak bant di di di di toj ay bopp kana loolu kana ñoom wistuñ wistuñ wistuñ poon ñoom kenn bañul yëg kenn yëgul yéen sax ñoom dañoo jékki rek jékki rek ma ba ci kër dañoo bett kenn yëgul kenn yëgu leen ñoom kenn yëgu leen ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu ne dara ci kër kenn yëgu leen ndax kii kii dañoo fekk mu ngi nelew kay ñi kay kii ñi dóor fee dañoo fekk mu ngi nelew wana kanaa ku nelew moom defu dara. bi ñu ñëwee lu ñu leen dara góor yi fi ne anañ gën leen keese góor ñi fi ne ana góor ñi jigéen ñi yuuxoo ñu ne soxla wuñ jigéen ñi góor lañ soxla lañu gën nañ nangam te lii di lañ ma fi wax wax ñu fi leen ne am na eh, béy gis ngeen leen wante xar yi gisuñu leen wante am na lu am la yaa ngi dégg ñii ñu ko tëdd hôpital ñi yóbbu nañ seen alal ñi yóbbu nañ seen xar ñi yóbbu nañ seen xaalis dama yaakaaroon Baye Fall Baye Fall su fekkee da ngay doxee ndigal soo ñëwee ci kir da nga war a xam nooy doxale ndax ñun ñëpp ay murid lañu ñun ñëpp ay Baye Fall lañu. ñun gisuñ gisuñu ku faatu ñun ñooñu gisuñu dégguñu gisuñu déedéet dara ñun ñun daal seen burwe lañ dégg dégguñu leneen ñun daal burwe Baye Fall lañ dégg nan lañ taxawe jigéen ñi wooy wooy wooy ñun ñëpp añ daje bi ci ci ñun ñëpp jigéen ña lépp moo taxaw fii ci état bi wante ñun gisuñu fii leneen lu dul bett nañu dóor nañ bi ñuy bëgg dee lii lañ fi gis dañoo bëgg affaire bi ñu bàyyi li ñuy def ngir yàlla ak jëmu Serigne Touba ndax gënuñu ñoom ginuñu ñoo nekk ay murit ñun ay murit saa def lañu yaa ngi dégg ndax fii mooy suñu cosaan ñun xamuñu fenn fudul fii yaa ngi dégg Daar raxmaan ñu fii lañu fekk jumaa ji fii lañ fekk suñuy maam fi ñu koy tabax fii jumaa ji ne teen moo fa nekkoon suñuy maam ñoo doon wogg foofu ay nag yaa ngi dégg kon nag génn ñu génn ñu ci sëñ Tuuba yaa ngi dégg jumaa ji sama maam def na juróom-ñaari kabban kon nag xam nga ne gën ñu nekk ay murit sëñ bi sëñ Mountakha li muy tere ñun ñoo ko gën a ñun gën a mën a tere loolu la ñuy bañ fii lu mu bañ Tuuba rek ñu bañ nañ ko fii Baay Faal man buleet démb ma gis leen def ni façon bi ñu def buleet démb wante lii moom nañu dimbali ngir yàlla bu mu ñaaraat ñun béy ak sàmm lañ fi doon def bi bor nañu ñëwee ñu bay béy yaa ngi dégg ñu ñuy sàmm gisuñu fi tool gisuñu fi dara lu dul ay bor fii mooy cay faali cay faali cay faali lii ñuy wax fii ay teenu maam seex ak ay fii ak ay sekew gaag dara amu fi woon fii daaru marnaan moo fi amoon kër ñang sol bokk cay faali ba bëril waaw boo dëkk moo ñu fekk fii ñun borom dëkk boo ñu fekk fii de ñun fekk si fuñ ko moo ñu fekk fii yaa ngi dégg borom dëkk bi moo ñu fekk ñun fekk fuñ ko de moo ñu fekk yaa ngi dégg moo moo ñu fekk ñun ak sëñ Abdou Mbacké borom dir borom dëkk bi moo ñu fekk de ñun fekk wuñ kenn yaa ngi dégg fii moo fi nekkoon cay faali sol boog bobaril sëñ Gumba Sall mais ndindi sëñ Fallu ndindi pël ndindi sëñ Fallu daar Rahman béyleel nay lii moo lii moo fi nekkoon soo musaana jóge fii ngay dem tout jumaa ja fii lañ doon def tànk julli jumaa ji saret amu fi oto amu fi kon nag ñun duñu fi duñu fii ay ay tourisme fii ñun fii lañ dëkk. Papa Ka tudd waaw mbir mi di man fi ma njëkk a jaaxal mooy fi ko jaaree si dañu doon wër li ñuy tere si dëkk bi ndax seet de bi bii keroog bi sëñ Mountakha waxee day tere si dëkkam nangam keroog tànkam la def kër yu fi nekk yëpp da leen wër ku ne mu nekk sëñ bi joxe na ndigal dañuy tere nangam dañuy tere nangam te kër gi sama maamaati maam sax moo ko mag waaye lu mel ni mosu fee dégg kenn mosu ko fee dégg hmm? léegi nag kuy tere loolu dog tànkam di wut tere loolu si biir ci biir ay dëkkandooyam kiram loolu war nañ ko faas yet nee nañu pool lañu doon wër nii lañu doon wër waaye fekk gisuñ fi dara ah jàpp nañu kii jël nañu ay juróom fukki xaram moom mi alaji dem nii rakkam dóor nañ ko buntu néegam lañ ko dóori daj ñu daj porte bi dóor ko ba mu nga ne jànnatu ah ñu yóbbu quatre cent cinquante mille bi mu yoroon yaa ngi dégg ah, keneen sa doomi nijaay kee itam kooku itam fii lañ ko dóore man maa ko yóbbu woon daamaatu yaa ngi dégg kii nga xam ne moom wattoon jur yi fii lañ ko fekk dóor ko mu ngi mu ngi hôpital tëdd léegi nag bu ñu defee noonu nag ñëw fekk nit ci géttam dóor ko rawale loolu dugg si biir kër fekk ay jigéen di dagg ay bunt di sànni ay gone loolu kay kana kana lu ne mun na faa war a xew man moom seedu wu ma Baay Faal bu dee seedu wu ma bal seedu wu ma lara man bi ma dawee ma ñëw ki gaa ki nga xam ne bu gaa ki ñu dóor ci bopp bopp bi toj maa ko jël yóbbu ko ndaamaatu yaa ngi dégg ki nga xam ne moo wattoon gétta gi ñoo daanu ci moom dóor ko fii doog dugg seen néeg yi jigéen bi doon wax fii mooy magam ay léeru ma dem ma ci néeg yi man ma foofu laa ci yem waaye nag lépp lépp lépp bu fekkoon dañu agsi woon ci njëkk ak tërank ñoom ñëw nañu fi ñu naan am na ku ñu yónni ñëw na fi jënd jëndaat jënd jëndaat kanakaay ki ñëwoon jënd jëndaat kooku war naa mën a jiite mu naan kii moom a jaay jaayaat nu wala du dégg wala mu naan kër gi laa ko jëndoon jëndaat waaye ñëw nañ fi kër yi kër gu mag la rek ku nekk ak kiram ku nekk ak kiram ah kër chef de village lañ jëm ñun kay jàmm rek lañ bëgg ni kii ni ko sëñ bi sante woon ni ko sëñ bi sante woon kii sant ñu ko ñun ci loolu la ñu wéy ci ndigal rek la ñu wéy ñun itam ba tey Baye Fall yi dañoo nekk Baye Fall waaye ñun itam ay murit la saa def lañ nangu murit itam nda kii keroog bi ko sëñ bi dogal waxee loolu daa sol dal la mooy chef du village bi kër yëpp lii mu village yi yëpp da leen koo wax ni mu bëggee foofu jàmm ñun itam noonu lañ ci bëggee jàmm lu ñuy tere buñ ko gisee suñu bët sax ñun dañu koy tere sëñ bi lu mu lu mu santaane lu ñuy tere bu buñ ko gisee seetuñu Baye Fall seetuñu gendarmerie seetuñu police dañ koy jéem a teral suñu bopp duñu xeex nag ñu def dara suñu doom yi ñu jàpp dañu leen ramax rek fekk fekk ñu leen ci dara fee lañ fekk kañ toog ci buntu bâtiment bee buñ leen fekkee foofu ñu ramas leen ñoom yëpp yóbbu am na ñoo xam ne ci kër gi lañ dëkk am na ñoo xam ne ci yeneen yi wër nii rek dañoo doo wëllu si rek am na ñoo xam ne sax dañoo agsi rek tombi ci ñu jëlaal leen noonu waaw loolu moom yoon moo xam lu tax mu def ko. man man maa ngi tudd Soxna Ba booy bii fii lay tëdd di xaar di wattu géttam dafa tëdd man ma dugg sama néeg sama baay xaar ko après mu jàpp ba pare julli daal di tëddaat ci lalam jàkkaarloog juraam ci la ñu ñëw fekke ko foofu ci lañ ko song dóor ko wóore fi wuñ dara xooluñ dara lu dul jàpp ci naan nañ sooma ci néeg ba vérifié nañ bagage ba jël sama doom yi tëddoon sànni ko ci étape gone gi nekk mooy parental bi ma jëloon léegi sànni ko ci étape bi noonu muy wër noonu ah léegi leneen mënoon na fee xew am nu mu doon demee tey paas naa fii tey jii ah kon di nga fekk beneen néew waaye li ñu wax man gis naa néew fi ñu ne ma ko néew na man maa fa dem maa fa jël yeneen béy bi deewoon ma ñëw di ko sànni ko feneen dégg nga après léegi ci laa ñëw di waat beneen bi indiwaat ko fii ñaari fekk mu dee dégg nga man awa ma keneen léegi ca lañ yu ko ca lañ jaar ci biir kër gi wuti fetal génn dugg ker sa nijaay dégg nga léegi su fekkee ne am na lu ñu vérifié sama biir kër maa fi nekk léegi nañ vérifié suñ gisee dara ne lii la ñu jàpp ma yobbu wala ñu jàpp boobu wattu jur yóbbu ko am du noonu waaye gisuñu fi dara vérifié wuñu fi dara laajuñu dara salaamaaleykum rek daal di attaqué ku tedd kay ku tedd kay yomb naa rey kana yàlla dimbali kay koy kon fi mu ne am passé na am déet ah yóbbu nañ sama juróom fukki xar. ci juróom dem suba sax dem nañ ah xar yi dañoo naa xam nga ne kii oto ñoo ko jaay seen kor dégg nga après ci xar yi daal di dow toj gëttam tiit fee lañ nekk ci gennaaw ci lañ omba fii maa ngi taxaw fii bëgg leen dem ñu ne soo fa demee bàyyi fay rëy waaye kon doon jël samay xar ñu ne soo fa demee ñu rëy ndax boobu ñu ngi taxaw fale ñoo ko maa ngi dëgg ñu tit tit tit di ko door di ko door di ko yóbbu am na ay xar bi bi ci des ni ci kër gi nii wëtt na boobu dañ koo damm ab béjjén ya après daal yàqal nañu yàq bu méttee métti. ñu ko doon jaar xam nga ne heure bi fi ñëw taf taf taf mënuñu fee nubbu dara am déet taf taf ni ñu duggee kër gi ba fa li ñu attaqué ak police yi ni ñu dikkee fii est ce que mën dara xam nga xaju fi ah? ay ay 11h jëm minuit ah minuit boobu lañ fi nekk fa lañ nekk ba fajar gars yi suutoon ñoom mu gën a